أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وكل من والاه إلى يوم نلقى فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب زدني علما نافعا ومباركا ممن من في سورة الشعراء كلمة الشعراء ميديك كن مشاعر مم ويقيد يب يب يب في كل يوم فرانسا مم يقيد ما يسالني يب يب بدون رقم من تنين لجو بلا اللي كل يوم لا تسمو يدخل عيد أمنا عيسان أمنا عيد يب سبتو باق مخا وتسيري ناداو يلاني عجيبادو أو يجيبادو وطيب تيجيني باق بنيخي ni muy duggee ci nit ki di yëngal ay sentiment ni mu koy defee ci nit noonu la koy defee ci yeneen la de yàlla nee na bu Seydina Daawuda doon jàng alquran ci baatam bu neex yeneen da ngay gis montagne yi ànd ak moom da ngay gis picc yi sax duñ dem continué ba doon dem ngir baatam bu neex boobu moom la ñuy tuddee ci jamono wala ci luxal arabiya al hudiya ñi doon sàmm di ko doon defal seen liñ doon sàmm nga xamante ne buñ jëloon baat bu neex leen di woyal rek dañ leen di topp rek tey jii boo demee ci rab yi ganaar yi dañ gis ñu neexal seen baat jigéen ñi ci ñoom boo demee ci picc yi tam naka noonu li gis naa ci benn vidéo boo xamante ne bu yéeme la sax benn waay boo xamante ne ci xawdul asmaa mooy genre ndaal yi nga xam ne dafay defaree verre def ci ndox dugal ci ay jën muy nodd gis nga buy nodd rek nga gis jën yi yëpp dañu topp si baat kon mu mel ni jën yooyu tam nii am lu ñuy yëg ci seen bopp ci baat bu neex boobu leen xale même bu nekkee ci biir yaayam sa baat bu neex daf ci am kaa suuf kon mu mel ni baat bu neex dafa yëngal la ñuy tuddee machaaya alaykum salaam mu na mu yëngalee machaaya yooyu ñaara ca ne am na ku ci baax am na Seydina Muhammad en tant que yonente yàlla bu doon jàng alquran ak baatam bu neex boobu le képp ku ko dégg rek il faut nga yële ko léegi woykat yi ñoom tam buñ doon woy ku leen dégg rek il faut nga yële ko ñu jël yonente bi nag boole ko ci woykat parce que xamuñu lu leen séparé xamuñu nag mooy lu leen séparé waaye yàlla bi nga xamante ne moom moom bee non séparé ko mais du benn te wax naa la li gën a nekk mooy nit nga askane ko bu bokkul jëkkale ko bu jëkkal moo tax nit bu ngeen nuyoo wante mu jox la sant boo xamante ne sa sant bu la kersa dabulee trop nga koy sax saa su continuer di lay jox sant boo du sa sant boo moytuwulee du ngeen dégg parce que li ko waral mooy nit bëggul na dëkkale mu dégg ko Seydina Muhammad en tant que yonente yàlla nga xamante ne yàlla ko yónni muy leeral rek en tant que yonente yàlla mooy wax ak kàddu yoo xamante yu laa gisul xal ba ca xol ba lay jëm naa boykat yi itam di naan ci xol. Mm-hmm. ñu jël yeneen te ñu boole ko parce que spécial wàcc mm-hmm. pour yéen ñi boobu. nga xamante ne ma ne la saar bi nga wax ne fii la dalee waxi na mm-hmm. ma ne la léegi dafa mel ni comme photo rek pour joxagum la parce que booy joxee information tey jii ci jamono dangay jël part bi nga jiital photo te gis nga photo boobu espace ba muy jël ci part bi boo moytuwul mu ëpp dañuy bind wala la nga xamante ne moom lay jël ci ko doon tiré ci vidéo wala boo ko doon tiré pour am ci photo mooy gën a naan sa encadré ko mu mel nii léegi yàlla daf ko doon joxe pour ñu xamal yan yi ñu mu joxe mu door a ñëw nag ci barab bu neex wala door a ñëw nag ci yonent bi ñëw di yëngal xol ak ñeneen ñi nga xamante ne dañuy ñëw di yëngal xol ndax yàlla wax ne faatiri samaawaati wal ard jaa'ili malaa'ikati rusulan بني الأيام مطناف تبع تورطة يدود في الخلق من يلا لما نموت يدود في الخلق ما يشاء ولكن يقول جوا خوانا في الموقف أي سايفني في أنا بابت نهر أنا تعرف بني أم تنيني يلا نو إنه بني بي ينجح في أبوي كتير في ذلك bi dafa dem lekk boo xamante ni ki ko réalisé xam nga ko demee musée dañ koy taalif ci luga arab yi comme ni ñu waxee taalif téere te téere bi ni ko ko taalif bi yàlla ko taalif ni ko yàlla taalif bi ñeneen taalif seenu téere noonu la ñu taalifee woy woy def ko ñu ngay bindee bindikat di jël di rëdd di bind di dajale di ba muy doon kasida wala mu doon téere noonu la woykat bi di bindee lu ñëw lu jël bind am ko seen bind spécial kon taalif dañ koy tuddee boo demee ak symphonie ak seen achar mooy bu xaw bi nga xamante ne moo taalif symphonie bi gën a siiw waaw ah, moom sax dafa seen maxoon wala dafa dafa te bind benn woy boo xamante wala benn musique boo xamante ne ànd fa ànd fa lañ ko bind ci loolu arabia mooy taalif la boo xam ne tey jii nii amagul kenn ku bind bu mel noonu te moom pourtant da doon dégg loolu bokk na ci liggéey mooy seen ko nekk bët xoobee kon yàlla nee na woykat yi dañuy taalif dañuy taalif waaye sama taalif nag la tànn si jóg ci ko taalif mooy rabbi la xale nga xamante ne mooy ci moom ñëpp kon bu dee ne war nañu déglu kan lañ war a déglu naka la bii ba mu pare mu daal di koy wàccee à ruuhul amin woykat yi bu ñu paree dañuy jël seen woy bi parole bi boole ko ab lan nga xamante ne moom mooy guitare bi boole ko ak piano bi boo boolee yëpp loolu laa jox nga xamante ne dafay am koo xamante ne mooy féete bi ci féete bi kon mu ne bii nag man yàlla maa ko tanzil waaye nag jox ko jibril alayhi salaam mu wàccaat ci kan ala qalbika ñett ko seetal muy kon mu mel ni am na al mulaqin bu dee ñoom ñu tuddee ko al mulaqin kon am na ku taalif mooy woykat bi ñu ko woyee am na koo xamante ne moom moo ko enregistré bi mu paree nag ñu déglu yàlla jox ko jibril wati ci seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo am baat moom mooy alaakaan bi daal pour wala la ci xol dana wàcc directement te alquran ci xol lay wàcc bu wàccee ban effet fa am parce que il faut am impact te ji booy déglu musique il faut mu am impact booy déglu alquran il bu mu am impact li taxoon na ñu naan moom وسأقول من أبير دون أن أورد أو الجنين كفول من القرآن وما يورد قل يدل على القرآن صلى الله عليه وسلم دفن يوفيت مكة نيكو دي دي دي فوق يجاهاني كنت بني أمين يقول لها فوق بني أمين يقول لها فوق te wonti ne dara te fonga tas dara wote wule dara rek la nga dindi da fay dal ci wa kon ba yàlla ñëwee dindi ba nga xam dafay feebaral xol mu ñu fi dafa indi alquran tax na ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon jiitu ci bi moo doon jàng alquran ba mu wàccee ca Màkka moo doon jàng ñëpp di dégg boo doon déggee am na ko doon tartiilee am na mu doon neexee boo ko déggee il faut nga taxawaay ba tey jinne ba ci rombe mënuñ koo romb kon boobu annahu istama nafaru minal jinni gis nga baat bu neex ni mu yóbbee nit boo ko déggee nga dem wuyu ji ko noonu la jinni itam du baat bu neex wax naa la léegi ci jën yi nga xam ne dañuy topp baat bu neex boo demee ci xare ak nag yi ak gëlëm yi dañ leen di wóoree nga gis man di leen di topp fan jëm xamante ne dana nekk ëmb sax dañ leen di wóoree kon baat bu neex oto bajjinde e degge batbun e feetre son ɗi janga alquran istama nafaru minen jinni fa qalu inna samina qur'ana enen jinni e soño bañiromo istarafna ileyka nafara minen jinni yastamiuna falamma hadaru qalu ansitu min minete kono yonenteni bañuño e dindi musique dafa indi paroliya e koye jangde jango ko neex jango boo xamante ne dafay yaxuru bi mariame al qulub xam nga bu doon jàng màkk alquran ñëpp a doon jox loolu nag moo doon indi ku ko déggoon rek il faut nga am nga asoo ci moom mhm. ñu toog ñu toog ba jamono ñu jógee màkk ñëw Madina mhm. xam nga dañ doon làkkatu mhm. ca daaru xarxam naa bi arka ndax ñu doon toog yonente bi dañ doon jaaxal sa yéen yan leen koy toppee te fekk na asoo bi ci alquran te yonente bi di doon def leneen lu dul jàng alquran toog di waaree nii alxuraan lépp la doon jàng parce que moo koy wax bu wax ñeent yi bi mu ñëwee Makkatal Madinatul Munawwara bu doon jàng alxuraan ñëpp a doon jooy moo indi hadis boobu yonente bi waaye ji nga xamante ne buñ doon jàng alxuraan ñëpp di jooy ci juma ji moom du jooy bu ma la ne saxaaba yi buñ doon dégg alxuraan rek parce que ñu doon jotee parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te naa kuy man alxuraan tey bii parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën a naa parce que alayhi fi si la da ngeen jàng jàngkat yi boo leen di dégg ñuy jàng alquran da ngeen ci imaginer sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon jàng ñëpp a doon jooy waaye dañoo am ay fan te bu gaay bi jooy du jooy benn bés yonent bi laaj ko wala moo tax muy jooy mu ne ko damay yëgul dara mu ne ko bu dee yëgul dara day jooy jooy day jooy jooy yonent bi ne ko day wax ay jooy waaye noonu la mu jeex ñëpp dem doon julli pare sa noppi moom mu continué di jooy rek. kenn mënatu ko parce que alxuraan alxuraan moom lay def ba tax tey jii nii boo ko déglu dañuy yëg dara ci sa bopp te bu rek na ci ñuy def dara rek. suñu saa yi alxuraan bu ngeen ko xamante ni sa rongo bi sa doo ko yëg. yàlla yàlla du ñuy naan keroog bi ñu def mu zaaxal alxuraan bi te ñu ko def ñu ko def doo wax kenn sax ne noppi leen ngeen dégg at bi ni mu ñëwee macha allah te bu ñëwee bi ñu naan daaru saw gis nañ ko am na fay gis góor gi jooy سيدنا إبراهيم يجد القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كراو بنكو جميل سبحان الله jàng ba na mu neexee ak baat ba na mu jógee subhanallah mu dëggee des fois dafay gën moo ñu ko mujjee jàppale loolu loolu mu di wax moom mu di wax ne daay mu bàyyi parce que boobu góor bi muy gëj ñu métti ba di yàlla wax dina am gan la xaaral ko ah xalaa jabali dara ay ku bëgg a yëngal machaayir yooyu ci sa biir xol bi te machaayir nabi na la lu baax la ñu yóbbul na yëg-yëg yi bokkul la waaye dafa am moo ko war a yëngalee am na loo xamante ne bu ko yëngalee rek yàq ko te am na loo xamante ni bu ko yëngalee rek kawel ko mu jëm ci yàlla moo tax dégg ñu ne si Abdul Aziz Si radiyallahu taala anhu fu mu jàngoon alquran suñu Babacar jooy te dégg mu jëm wax ne ko bu ci bu jàng alquran balaa ñuy jóg suñu Babacar il faut mu jooy dana jooy jóg yére parce que te loolu dafa nekk ñu xam ne te yéen mooy déglu buy woy buur daam boobu wala muy jàng alquran macha allah dañuy yéeg mën na ko expliqué waaye fa mu lay yéegal nag ca niveau ba dañuy yéegal ca yàlla mu wutee beneen bi nga xamante ne fa mu lay yéegal bu baaxul moo tax bi yàlla ñu ne wàccee dindi musique dañuy nazara bii nag innahu bii la tanziil dafa doon boo xamante ne ki ko taalif moom la mooy lu ñuy déglu la. ah kon noonu li ngay xamee parce que am na koo xamante ne mu ngay woy woy ba neex na waaye parole bi amul njëriñ parole waaye li muy wax amul njëriñ wala mën na doon ay saako. ba du nekk ci woykat yoo xamante ne li ñuy woy. mu mel ni alquranul karim boobu noonu bi ko yàlla wàccee daal di koy jël boole ko ci ñett nga xamante ne mooy yëngal machaayir parce que bu fàtte ne yàlla dafa soxla xol xol la soxla ci biir xal bay na suba in min asaabi rahma yàlla buy wàcc fii ci xol bi lay wàcc buy xol bi lay xool inna allaha la yandur ila suwarikum wal saani walaakin yanzuru ilaa quluubihim ba tax yëg-yëg yooyu noonu mooy yëngal xel mooy yëngal xel yi mooy yëngal xel xel mën a ñor même gis nga wér gu yaram sax baat bu koy faj waaw baat bu koy waral na noonu dafay dem nga xamante ne mooy. hormone yi génne ak yi nga xamante ne moom mooy matière yi génne ci yaram bi ñàkk boobu noonu loolu kon mu mel ni yàlla indi na baax bu neex na noo jàngee alquran loolu bi laa mën a dégg mu wax mu ne alquran mooy lii yéen ku ko jàng rek nga ne moo gën a neex baax te xoolal njàng ni li ñu wut xoolal Abdul Basit bu koy jàng Abdul Muhsin Qasim ak suñu gars yi nekk fii ci Sénégal buñ koy jàng danañ yëpp ne alquran lu neex la te pourtant baat bi du benn loolu ci ñun mooy daal ko jëlee rek bu neex même bi dafa am solo maanaam li ngay dégg daf lay amal njëriñ moo tax mu ne bii tam fii du ko wàccee nag bu kan bu yàlla xam nga téere yàlla bi moo gën moo ëpp li mu jeex gis nga ni ngay nattee yàlla ci mbindaaf la nag noonu ngay nattee waxam ci yeneen yi ma ko wax ci xarit léegi sama wax bi alquran mu génnee yeneen wax dafa man yàlla bi ma génnee sama jaam gis nga ni yàlla génnee lépp day jëriñ côté bu ne waxam bi noonu la mooy téere boo xamante ni dafa matee côté bu ne sa xel dana ci ñoro sa wér gu yaram dana ci amee dana ci am tranquillité ala des utilisateurs la ñu xool te dañ ci am itam bànneex yooyu noonu nga xamante ne moom lañ tuddee ay sentiment yëpp yooyu noonu nekk ci biir xol na ko yëngu dina ko yëngal te bu ko yëngalee dina ko yóbbu fu rafet ñett setu eh, sekk ko mooy nazala bi ci ko wàccee ar léeg-léeg nag ak ruux ñëwul te tudd te namm ci Jibril fii nag Jibril la ci namm parce que man kaana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika waaye léeg-léeg ruux ñëw tudd Jibril comme ni nga xamante ne zikr innaa nahnu nazzalna zikra foofu alquran la ci namm maa yaatihim min zikrin foofu Seydina Muhammad la ci namm kon yëpp zikr la waaye bokk nañu fi noonu lay firee itam ruuxu يقول مفني جبريل آه، يقول مفني كريم بن جبريل وتتنزل الملائكة والروح والروح فوق أرواح أنبيائه يقول مفني آدم عليه السلام لكم دين ذاك في موضع بايك تنزل الملائكة في المتزين دين والروح هو أرواح الأنبياء الأرواح الأولياء من دين وتشكلكم قل لنا الروح الأمين لما تسمى nga xamante يقول يوم يوم lépp daf koo wàccee di koy ko ko yàlla jox mu ñëw wàccee ko ala kal bi teg ci biir xol bi bi ko Seydina Muhammad déggee rek keroog la wér kon tey jii nii boo ko dégloo rek keroog lay wér di takku na minal munziriina ndax li ko war mbaax buy wàllee moo gën ndax moo tax dox am barke parce que dafay mën a jëriñ keneen gis nga boo wéree bi ngay déglu alquran dangay mën a wéral keneen keneen muy sa yow da ngay feebar feebaral keneen kon bii mbaax bu baax la ko mu ñëw nekk nag bi ci làkk boo xamante ne arab yi arab la mu bind ba tey jii nii nga xamante ne ñoom ne dañ koy bëgg a def comme rab déedéet arab la dañuy dàgg dàgg arab la ndax ko ko kon rab arab la bàyyi ko te ñuy jël seen daaj bi comme daaj bi arab arab mooy wàcce ak rab voilà moom la kon arab foofu la rab jóge maanaam rab ci arab rabu arab la jóge kon ñu maanaam daf ko wàcce ci làkk boo xam ne làkk arab bu neex nga xamante ni mën nga ci am say daaj yi ñu wax nga xamante ne dafay wàcc ci biir xol bi dafay gën a neex mu ne naan bàyyi mu bii nii léegoo léeg booy déglu yéen a wuyu wuyu kat yi doo déglu li ñuy wax wala dé néew na kuy déglu woy nga xam lan la parole bi di wax yëpp ñu mën ko déglu ñeen rek ñoo koy mën a comprendre waaye li jëlee bëri dañuy déglu nit yi ñu muy def waaye li muy wax ñu xam lan lay wax mu ne bii nag même temps dafay neex waaye même temps nag dañuy dégg li muy wax déglu ñu am dëgg déglu alquran ñuy jàng buñ ko joxee xattam jox ko tey bi jël du noo xakkati laawati yi dañ koy dégg amul dara dañuy dàgg ba duñu boole ba su ko defee rek gis nañ ne arab yi moo ngi ñëw mu wutee boykat yi mën nañu wax lu bari te doo xam lu muy wax parce que léeg-léeg ñu di leen di saaga sax te doo xam lu muy wax parce que ni ñu koy defee arab yi moo ngi ñëw wa inna ko beneen bi daañu leen ci alquran boo demee ci dina bëri daf koy jox tamit yi wa innahu la qur'aanun kariimun fi kitaabin maknuun wa innahu la zikrun ndax man xamuñ ko alquran toujours dégg na ko yàlla da koy jox doole wa innahu nee na gis nga téere bii alquran bi neexaay bi mu àndal ak dund bu muy dundal xol dafay dugg di laa ko bu baax wax na ko ci téere yi boo demee bokk na ci li Moussa wax nga ne ko bu ñëwee dafay dugg wax leeray génn ci lamine Insa wax na ko nee na leeray génn ci lamine leeray génn ci lamine mooy alquran te bu ko wax bu ko waxee rek il faut nga am loolu il faut nga taxawal te waaye da nga xamante ne moom moo ñëwoon jëm te ko sa bàyyi la wala sa maam sama xarit la woon ma dégg ne danaa dof ma ñëw pour faj la comme yëpp yëpp dañu jàngal Ida Zulzatul Abdu Zulzalaha ba yonente bi si jeexal bi ñu koy jàng sallallahu alayhi wa sallam bi ko yonente bi dafa ne tekk moom moo ne dafa faj dof dafa bëgg a sarax yonente bi rek dafa amoon problème ak maamam pour faj ko mu ñëw yéen kilifa la laa laaj ko ñu ko lan moo lay ñëwaat ak lan ngay gis yonent bi commencé ci jàpp si la ci jàngal ko sax ba muy pare mu yëngal ko. dafa ñuy teg li muy jënd mosu tuuti ba mu tuuti ma ne lii mos ma ko ji yéen ci lii muy fan mënuñu ko mënuñu ko indi kon ñu ngi waxu ji kon kooku dafa ñëwoon pour sax seen waaye keroog ba mu déggee alxuraan keroog la pour mu wër yàlla alquran bi foofu lay foofu lay mu doon leer même boo demee ci ruya mu'jiza Abdul Nafi jaa ila fatih wa qad awfa ala dari ba nga koy jox tegtalu yonent bi ne ko borom et lay doon saahibu ko wax saahibu tilaawa koo xam wax loo xamante ni kenn du ma ko jiite te ba tey jii nii kenn moom ko te dañ ciy def tajriba ba léegoo léeg benn waay boo xam ne waa Allemagne indil ko ay xasaa indi yi woyoo ko mu ne ma yëgul waaye di indi ay ñaan yu mu boole nii neexal ko moom mu ne am na tuuti mu yëg moom dafa mel ni daal moom ci biir Iblis ki nekk ci Iblis bi di mu ne noonu la ñu loolu la yëg mu jàngal ko ak booba waaye boobu bu jàngalee ak mu ne ko bii bokk la ñu yëg te la mu ne li mu yëg bokkul ak la mu yëg ca yëg kon fii lay wàcc Alxuraanul Kariim ku bugg a faj ñu ko faj innal quluuba maa jalla boobu alquran bi la ñëw na fii zuburin aw tere yu njëkk yi ñu amul baat bu ko gën a neex danañ wax itam baatu yàlla am na lu ko gën a mën yàlla mu bind xol xam li neex li neex ci xol il faut mu neex ko fii zuburin awal tere yu njëkk yi wax ñu alquran daf bu ñëwee dañu commencé di koy jàng ñu na dafay neex ci xol awalam yàqu ndax nekkalu leen لهم نيال لن يوم ومكني ولا يوم يفيري ولا يوم يدل ميزي أن يعلمهم وخمدي علماء بني إسرائيل علماء بني إسرائيل أربعين بني بني خالد li tax mu wax ko parce que waa Màkka yi dañu wóolu woon ñi nga xamante ni ñoom ñooy yabu ñoom lu ñu leen waxoon parce que dañ ko doon jëm ñoom ci wàllu ko côté woo dañ leen dañ leen ci jëmoon yabu moo tax yàlla di leen fi cité parce que ñoom xamoon nañ ne yonente moom bu ñëwee dafay guddi wax comme ni ñu xamee ne Moussa at la indi ñoom xam nañ loolu moo jëndatu Moussa mooy et moo jëndatu Insa mooy moo jëndatu Mouhamad wax la te ki nga xamante ne mooy wax la baatam mooy gën a sori ñi nga xamante ne di xam boo demee alquranul karim muy mu'jizatul kubra côté boo ko jëlee rek boo ko jëlee rek moo tax mu ne awalam yaqul ñoom nekkalu leen ayatan mandarga li yow yonente na an yaalamahu mu xam lii xam alquran li muy def ci xol wala maa ko bani israil ñoo xam nañ ko walaw nazalna waa Makka yi nga xamante ne ay fecckat la walaw nazalnaahu bu ma wàccee woon téere bii ala ba'dil ajamiin ci ñenn ñi nga xamante ne bii ay arab kalimatu ajam la ajam baax a ajam baax na ñaar yëpp boo koy ci waa rajo yoon am na ñoo xam ne am na sax bu tënk boo nee ajamiyun mooy koo xamante ne judduwul nekk arab même su fekkee ne moom arab amma boo nee ajamiyun mooy koo xamante ne mënul arab même su fekkee dafa judd nekk arab aajoom mooy koo xam ne dafa jublu arab aajoom yoon nag mooy koo xam ne dafa jublu te nekkul arab ñoom su fekkee ne moom dégg na arab am nañu ko ñu def ko boobu ñu dégg leen. ñu ngi fekkee jaarante xadis na leen di ñëw képp ku wax arab rek arab la képp ku wax arab arab la moo tax tey jii nii nga mën a gis ñoom Maroc ñu boole ci réew arab Turquie sax xëy na ñu réew arab yi. waaye réew arab parce que arab la ñuy utiliser kon wala na balla bu ma wàccee woon téere bi ala baadil ajami da ci ñenn ñi nga xamante ne duñu ay arab fa qaraahu alayhim nga ñëw ba makka ci arab yi jàngal leen ko maakaanu bi moom la dal ñeneen ñi di leen ca dal tey jii da ngay gis ñu daan alquran xamuñu lu mu wax ñu gis ñu jooy day def musaabakat yi ci ramadan yi ci alquran ngay gis ko xam ne xale bu jàng alquran nga gis ñu yëpp di jooy te du mën a te pourtant xale bi xamul lu muy jàng ñiy déglu itam ñu bëri ci ñoom comprendre lu am na taasir ci seen biir xol parce que tey jii da ngay gis kuy déglu musique boo xamante ne àllaay la pourtant te du am waaye dafay am taasir ci loolu baax bu neex moom rek moom surtout dafay mën a ñëw gis na ko impo imposé boppam hmm. mu ne nag li dal ñeneen ñi ba bu ñuy déglu alquran seen xol mën a dund même su fekkee ne dégg bi li ñuy mu ne sa gaay yii mooy arab yii wow nañu xol wow boo xamante ne boo ne faale bi loolu xaw na avant euh, jox avantage doo ko doon arab yi arab lu bokkul a tamit ne jamono bu dee engrais la dañu ko xaw a fonk waaye arab dafa doon ko am bokk dafa fonk làpp jàmbur téye la léegi waaye bu njëkk duñ ci doon sonn sax pour jàmbur parce que soxla wuñu ko ñoom dañuy doylu seen bopp moo tax yàlla sax gis nga amul benn yonente bu ñëw bi ñoom ñu jóg ko te pourtant yonente yàgg nañu waaye ni nit ñi doon tuubee tey jii nga xoolal tubaab yëpp tuubu nañ ci diina catholique la dem ñi ne ñu dugg ci diina yahuud yeneen dugg ci lislaam arab mooy ñoo xamante ne duñu dugg la benn diine ñoom la noonu lañ seen bopp rek Seydina Muhammad daal mooy ki leen jaar sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo ñëw te topp ba nga ko topp ci ñàkk pexe te ba tey jii nii sax ko ngi koy tuddoo waaye ba léegi sax matewu na mu war a mate kon ñoom dañu doon ñoo xamante ne seen xol dafa wow lu koy dundal yokk te xam nga loolu la ñuy tuddee machaayix dafa bokk ci li nga xamante ne dafay wane mandarga nit ku nit ku dund. Mm-hmm. nit ku dund liñ faral di ak yëg-yëg moo tax baat bu nekk ci comme lu laal amul yëg-yëg boromam lii di kawe mm-hmm. te yëg-yëg dafa bokk ci matière islam yi mu ne arab yi la ñoo xamante ko waaye boo ko waxee ci arab nag bu boobaa nag ñu jël ci kontaan parce que gis ñu làkk la ci lay doon a kontaan parce que seen làkk la. Mm-hmm. mane la lolu amna avantage mu defal arab tey jii nii tax na bi arab xaw a tasaaro ci àdduna parce que nga matériel bu ñu def te defuñu ko arab ñom ci ci doy ay imara ay arab saudi bi waaye bu ci defee bu arab la ñoom ci lañ koy jël comme ñoom di téye lu adduna bi nag marché bii gën a jënd ñom la oto yi ñom ñooy jënd ak yooyu ñoom ñooy jënd ah matériel yëpp ñu jeex même tay jii ni sax nga ñoom ñom ñokay gën a jënd ci àdduna at bu nekk budget yi génne réew mu ne jënd lu dul jeexal ay milliards 2017 engrais dañu amoon problème économique arab ba dina ñëw jaay ba ay ngànnaay ay milliards mooy yëkkatiwaat seen économie ñu jënd ko rek ñëw gaale ko ak bu nekk ñu changé seen ngànnaay dañuy jënd ngànnaay rek tamit duñ ko utilisé amul ñu ne joxul Israël la te ñëwoon ñu attaque Israël seen mbokk yi rek lañ koy xaar kenn ku ci nekk yaa ngi xaar sa mbokk rek pour nga toog kon mu mel ni ñoom amuñu dara loo xamante ni moom la ñuy xeexal lépp dañ koy jënd comme dañuy jënd nag dañuy obliger ña leen di jaay nag jox ko ci seen tax muy lu ordinateur bi arab muy lu arab muy lu dem lu gën a arab waaye duw ne ñoom ñoo koy defar waaye comme ñoom ñoo koy jënd nag te buñ ko comprendre duñ ko jënd moo tax ñu di ko dugg arab ñu dul moom doy doy loolu la moom bëgg ku dul moom doy loo ko moo tax mu ne bu ma ko wàccee woon ci beneen làkk bu dul arab fa qara'ahu alayhim mu ñëw di leen koy jàngal fa qara'ahu la wax sax waxul fa qara'atahu Jibril ñëw jàngal leen ko Jibril laa wax directement Jibril directement ñëw di leen di jàngal te aaya nekkul aaya alquran di leen di wax ay soose wala mu di leen di wax ay joola wala mu di leen di wax ay angal maa ngi leen di kadalika mooy li nga nekk misaal kadalika mu ne gis nga yëngal xolu ñooñu nga xamante ne laa a noonu salaknaahu noonu laa ko defee nag muy romb fi quluubil mujrimiin saasay bu koy déglu du yëg dara saasay buy déglu yëg dara moo yàlla ne ngay kalimatu silk silk silk mooy fii fii mooy joxe courant waaye du tàkk fii mooy joxe courant waaye du tàkk parce nga gis ñoo ngi day jàng wala ñu di koy déglu waaye du ko yëg bi fii lay waaye fii dana leer muy làmp ne moom bii du leer yàlla ñu loolu baaxul parce que il faut nga doon julli boo déglu alquran waaye su fekkee ne nag saa saay war nga def déglu suñu suuf ci kaw suñu suuf yi bi nga xamee di dem ba yëg canal rajo buy wax alquran wala booy taal alquran ci sa biir kër yi tane na sa demee téeri téeri da ngay gis ku ñëw jël baaxul ñëw teg ko fan. loolee gars yi bëgg a kaas mu def nga bëgg a kaas mooy la mooy ñoo jël sa baabu teg ko ci mbedd bi di musique xale di ñëw di fecc bés bu ne bëggee ko ko def ci kon kii bu defee te mosul waa koy def waaye bés boo ko defoon alquran bés boo ko defoon alquran da ngay ko lu jëf parce que dañ la ko waxuma sax waaye gis nga loo noppi yi sax ñun ciy gis. kàddu métier mais alquran bu ñu ko tegee ñuy jàng ñu ngi xas dara de moo tax alquran bu ñu tegee ki nekk saa yi mën na koo teg ñu gisal ci parce que li ko war a mën mu koy soxla la muy yëngal ca moom neexu que seytaane bi ci biiram la moo tax mu ne la kadalika alquran bii la muy yëngal yëngal xol salaat naa ko dafay yu mujj yi ñu ne ci xolu saa saa jëriñu du ci am benn effet. lii yëpp daa xool dafay wow.